ñu jàpp mooy que euh, xam-xam du doy te xam-xam fu mu ne rek war nañ ko jëli indi ko parce que ñi nga ñun ñii sénégalais mérité nañu am xam-xam bi nga xam ne moo gën a mucc ayib ci wàllu santé moo tax tey jii nii bi ñu indee suñu xarit yi ñu ne du ñu yem rek ci ophtalmo yi nga xam ne ñoo nekk suñu hôpital il faut que ñu invité yeneen ophtalmologue ñoom it ñu ñëw profité ci bénéficier ci ba nga xam ne ëllëg ak si biir ñoom ci seen bopp dinañ ko mën a pratiquer bu fekkee ne jumtukaay yi wax dëgg yàlla euh, euh, yemb na teew na te dàquñu bu ñu paree formation bi maanaam liggéey en réseau xool naka la ñu war a mën a def ba képp koo xam ne rek ophtalmologue moo xam nga nekk Tamba Ziguinchor Ndioum Saint-Louis naka la ñu war a mën a def pour que nga dugg ci réseau boobu pour mën a gën a sàkku xam-xam dëgg la mais également pour gën a mën a am jumtukaay yoo xam ne fa nga nekk di liggéey sénégalais ya fa nekk dinañ ci dinañ ci bénéficier wu.